waaye man ku ma xam xam ne du ma dellu gannaaw lu may dellu gannaaw amul dara duma ko dellu gannaaw dama wax lu am man du ma nit kuy dellu ginnaaw kuy wax la ngay wax jaaduwul koo koy dellu ginnaaw man li may wax daa jaar daa jaar yoon awma lu may dellu ginnaaw awma kenn ku may ragal li may waxit ci sit yi laa koy wax waxuma ko ci télé bugaan na leer ci site yi laa koy wax waxuma ci télé bugaan dara nañ bàyyi télé jàmbur waxuma fa dara li may wax fii laa koy wax ti li may wax fii lu jaadu la waaw kon wax waxaat duma ko def awma lu may dellu gannaaw awma ku may tiit awma lu may ragal awma lu may def dara man daal wax naa li may wax pare naa ci buñ ko déggee noonu ñoo xam buñ ko déggewul noonu ñoo xam parce que yàlla rek a fi ne kenn newu fi wax na non itam bul wax dellu ginnaaw man lu may dellu ginnaaw. ak ban combat man yëguma ko woon. Bougane moo ma ko wax Bougane moo ma ko wax yëguma ko man du ma déglu du ma xool duma def dara awma lu may wéet awma lu may ragal awma lu may tiit awma dara man yàlla laa àndal ku ànd ak yàlla du tiit man tiituma dara li ma wax wax naa ko duma ca dellu buñ ko bëggee ñoo xam suñ bëggul ñoo xam mais nag li may wax ci site yi laa koy waxe waxewuma ko ci télé bu gaan na leer awma lu may dellu ginnaaw looy dellu ginnaaw wax euh, wax boo xam ne la nga wax xëy na ñeme ko nga daw dellu ginnaaw wala da ngaa wéet ci combat bi ban combat oh, sëñ bi bàyyi loolu waaye day yàggal suñu waxtaan waaw ay ay dellu gannaaw yooyu amu fi mais wax ma lu ci dellu ginnaaw xanaa mooy la ma waxoon waxuma ko mais ne naa leen indi leen ma fu ma fu ma ko tudd waxuma loolu su ma su amee niñ ko indi gisaguma ko dendale la ñuy wax dendale du wax dangay ngay firi alquran ba ki nga toogal ne moom ngay wax da ngay firi alquran ba ki nga toogal ne moom ngay wax or que waxuloo ko firi moo demee noonu donc kon loolu amul dellu ginnaaw amul li am mooy wax naa leen ko suñu ko gëmee baax na suñu ko gëmul baax na nañu continuer man faalewu ma leen tooñu ma leen tooñu ma leen waxuma seen kilifa tudduma dara kon lu ca sedd amul do yow kon dégluwoo ko yow mi wax dégluwoo ko boo ko dégloo xam ne seddul sedd ah yow dégluwoo ko nag